ngir sekk mom ak jotaay bo xamanteni dañ ci and di ci laabirante mbokk julit yeb ak mbokk yi nga xamne ñoy mbokk talib yi rawate na ñi nga xamne dañu mbawor di ci liggeel Cheikh ibrahim Fall ñuko yobbu keur kër Touba ngi leen di nuyu bu baax ci wat di siara sëriñ bi di ko ci wër yu baax diko ñaanal liggeey bi muy liggeel sëriñ Touba yal nako ko bi nangu ta fulal ko ko may ko katan ak fanu wu ba mu gën ko mëna def ci barke Cheikh ibrahim Fall sëñ bi ngi lay siara ci wër yu bismillah jere jere حسن بسم الله الرحمن الرحيم صل اللسان نور جناني سفي الأماني وسب براي سنصرت دير الخطة ما يرفلتك في جور من يراي عن خزيالي من الضلال وبالآلال خلص راي شني كتاب خل الكتاب وخل مطوي يستراي يا خير رب خير مرب تاي تاخد بيت التجاي صل وسلم على المتم وكل يسم بالانتهاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وسلم على المتم وكل يسم بالانتهاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ñu ngi leen nuyu di leen sant di ak ñi ngeen di taxawee di feeñal mbirum lislaam ak yoonu Sëñ Tuubaa ak Cheikh ak seenub taxawaay ci diine ci sun xol seet na ci gërëm na ñu ngi leen ci sant jërëjëf. Ah, sëñ bi jërëjëf ñu ngi ci mi jërëjëf ñu ngi ci weer wi ci fukki fan yi ak juróom ah, ñu wax ne awaluha rahma wasatuha maxfiratan wa ittu mina naar loolu ñuy woor la wala ñuy joxe ndog ci leen bokk. yàlla dañ awaluha wax néew bu di néewul ko def nangam la ko def dana weer wi. Ah. njëlbeen gi. rahma njëggal yër yërmandal digg digg bi njëg njëggal la eh, mujj gi etxat eh, mi na naar yi gore ci sawara lool moom ña koy def xanaa kuy wor ba nga balaa sa koor so da ngaa dog di kon nag lu loo am lu ñu jox koy wor war nañ ko jox ko ko dogal am na ah, noo ko gisee yow am nañ laa fay te fay ñu ñu ko defa ah? ah innama nootu min kum leew ci laa nootu min kum jasaan wala sukkoor ndu alxuraan na ko nangu te eh, eh, Seydina Aliou mu mag ma de ba ko yàlla may àjjana sun borom yonent bi da ko ne dugg nga sun borom may na la ajjana de mayu la ko ci sa xeex bi mayu la ko ci leneen mayu la ko ci leen gorom de hmm. li nga taaj ñett yoon sa ndab boo demee woot kenn xam nga kon kooku jaarale ko ci lool kon yéen moom boo <laughs> ok jërëjëf <laughs> mbokk yi kon ñu daal di ñëw eh, waaw sëñ sikkar si ñuy sikkar di sikkar noonu Cheikh Ibra ko daan def wala yéen ko fi tàmbali lool de. sikkar moom sikkarul ilaay lil xuloo bi xóotu la sëñ bax di nee tudd yàlla mooy dundal xol bàyyi ko da koy dundal xol bàyyi ko da koy rey. laa ilaha illallah nag Cheikh Ibrahima sama gimiñ gi gimiñ gu ne am na lu tax yàlla xaar ko waaye man sama gimiñ gi laa ilaha illallah ak sëñ Bamba sama liggéey ngi ak lu may liggéey ji tax yàlla sàkk waaw saakirin laa kasirin wa saakiraat suñu borom wax na ko de te dama leen sikkar si ku ko tere nit ñet bàyyi leen ñiy taasu koo xam ne boo ko sikkar te dama leen sikkar si ku ko tere nit ñet bàyyi leen ñiy taasu koo xam ne boo ko sikkar loolu mu taasu nag bàyyi ko mu sikkar gën muy taasu ah, eh, eh, jërëjëf eh, kon sëñ bi ñu àndandoo kii léegi kon yé Cheikh Ibrahima moom xanaa yéen a ci dolli may sa Kumba Faal jeeg ak borom Mbawar ak borom nangam yooyu loolu kar ko ñoo koy tagg wa ibni maxsuun wa jaa ibni salaam yi suñ bee ko ci dolli ci téer yi ah am na tumfatu fi ne tagg nañ ci ñeneen di wajal tawasuli li men yadu bi saata daarin wax firdi bi tawasuli bi jaay wa suñ borom wax weñ yi weñ yi dëkk bi ba mu neexut a def émission kii ak pompe nu weñ yi bari balewun def na loolu loo ci wax bala waaw loolu man fi ne nii nga ko gisee jotaguma ko na seetlu sax man ba di ko gis man li ma war a def li ma war a def te desuma ko laay seetlu waaye liñ ma war a defal te defaluñ ma ko moom ko ko war def te defu ko laa koy bàyyee yow day sa xarit xam na moo sax day sa xaritu xarit boog <laughs> kon waaye léegi ñu ñëw waa kay kon <laughs> jërëjëf léegi ñu kon waaye <laughs> ci Cheikh Ibra ndog yi ni mu ko daan defee yooyu xam naa wax nañ ko ci yeneen waaye baamtuwaat ko fii ginnaaw de bokkunu kii incha allah eh, ndog yi moom suñ mag beeg ko santoon ndax moo ca yónnee woon ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci baraxlu ne ko maa ngi séenu gan suba te bëgg naa juróom-ñeent ci baraxlu ne ko maa ngi séenu gan suba te bëgg naa ñi wutal koy teraanga nga xam Cheikh Ibrahima sama baan tey la ci ñaata fan ñu ne fukk ak juróom-ñeent mm-hmm. mu ne leen kon ramadaan mi lanu sant nu teral ko ci mm-hmm. te sëñ bet noon la tuddee weeru koor yaa xayra day fin ata bil bisir wal madadi mm-hmm. ahlan wa saala wa tarhiban bila hadadi ndab yu saxaar gi indi njaarim bi mu ñëwee njaarim dañ ko yenoo kër Cheikh di ko yóbbu kër gu mag bi fi bàyyi ko doomam yi ku fi toogal Cheikh Ibra daa ko def say rakk ak say ñëpp ànd jegew sun waajur wi nag bi mu fi nekkee bi fi magam nekkee da ko daan ànd ak ñoom lu mu lu mu dajale yóbbul ko sëñ Mor sëñ Moustapha Fall ba ci sëñ Ablaye mi sëñ Ablaye sëñ Modou Ablaye sax dal naan ko sa baay sëñ Aliou li ma ci defal kenn defu ko ci yoon te loola sëñ Ablaye waxal na ma lu ko dëgg ndax daan woon sëñ bi de sa baay de li tax nga xam ne gëm na Seex bi naa ne mas naa ko fekk Mbàkke mu di ma gunge ban weesu Mbodiène boobu dañuy dox ak tànk nee mu bu sëñ Mor de soog a wàcc mu ne man na ma doon def ci sëñ Mor de may na nga ma ñaanal ma man ko ci sëñ Ablaye ndax ma si na ma doon def ci suñ moo de may na nga ma ñaanal ma man ko ci sëñ Abdoulaye ndax ma Cheikh Ibrahima tax di def te dem bu ci dara wàññi ko day mel ne bokk gi ndey ndey laay liggéeyal te Cheikh Ibrahima laa doon liggéeyal loolee na nga taxan Cheikh sëñ Aliou daa ko def te na ba moo ngi xam ne bi mu koy bi ko sëñ Fallou woo fii ne ko ñëwal fii ci Touba di sa sama di sam nun Cheikh Ibrahima di sam nun Cheikh Ibrahima di sam suñ Touba waxuma la mbawar waaye gébb sax mayetuma la nga dem fi bi mu ñëwee demaatu fi gébb soxna Faa Mbay ma neen gébb nee na fa ba daa wàccub liggéey ñii indi ko fi waaye gis waatu feeg sëñ bi nga xam ne ndigal la ko sëñ bi bàyyi woon ci la continué fii moom di ko fi toggi bi mu koy ba sun borom def ju ko wutal tur ñu wutal ko ci ñi dàq na julli ci jumaa jëkk ku ñi tudd ko ko mën leen kon sañ na maa lekkat sama junni tudde ko Cheikh Ibra ba mu ko déddee Cheikh Ibra nag la sañal yu taam bis boobu daa rey ne ngeen da koy ngénteel Cheikh Ibra bi mu jàllee nu defe na ca la yem ajjuma ju ñëwaat mu def ko 63 la ko ba 78. da koo a wàccu liggéey da koo bañ a tardé mu ko sëñ bi yërëman na nañuy tàmbali ci ndog yi bi ma ko ñaanaatee sëñ bi nag mu ne ma kon weer wu ne may naa la nga barkeelu ci ajjuma ceeb ya ñu daan def ndog yet atum déwaaliyee bu njëkk ba ma ne leen nag man dama koy déwaaliyee ndax atum déwaliyee bu njëkk ba ma ne leen nag man dama koy déwaliyee ndax euh, gan lu gën a a gën a baax bàyyi ceeb boobee ñuy togg ndawal ak macaron ak pomme terre biñ demee ba gën koo mën ñu far bàyyi macaron yaag yëpp di ko def ndawal ak pomme terre te buñ mënee lu ko fi di ko ca dama leen hippopotame bu dagaana bu daganante jàppandeen bis bu seen mayit ko sëñ Euh, kon ci yow daal foofu nga toll léegi léegi bi ko sëñ Aliou defee lee xanaa son trois léegi de juróom fukki at yi teg na lu bari moom moom booba léegi jëlalu leen ci sëñ bi jëlalu ko ci samedi ajjuma yi yow jëlaloo ko ci ajjuma yi. Ah. waaw léegi de jëndalu ko benn yoon nun it noonu lañ ci sax ndax am na mag ñu nekk nag moom demoon nañ ba mu ñaar téeméeri ajjuma xuma la lan sëñ bi xotti kayit bi leen bu leen ma ko wonati yéen da ngeen a bëgg ku leen déglu day naagu te ku naagu daagu te ku daagu ñu raw la yàlla moom koy defal gis na ko alam yoo xam ne benn laa yara sëñ Touba tax ma ko def léegi bi ndeetal nag yi xewee nag ba nga xam ne daan nañ fi jaay aw nag ci paquetu warga yi ñu wax tee werte de Chine ak peñu suukar muy temps yéen sëñ Fallou de Chine ak peñu suukar sëñ bi nag woo ko doon wax ne nag jur ga ngeen ma doon garde de ga ngeen ma doon denc loo denc naa ko fu ko ndeeti lii fekk dee waaye ci ndigal yàlla de ña doon gardeel seen bopp nag seenu jur seenu yet lañ des waaw boobee nag la ko continué moom mooy li ma wax te bis bu àjjuma ju jot it wàccee kaamil lañ koy boole nuy ba mu ko ko jële léegi léegi nag nuy noon lañ ci kon ni te daraan def bu kooree ñaan ko da nga war a ndog yi gannaaw koor gi dugg na te bis bu seen nga togg ndog da nga ko ca war a far raaxale rek sañ bi di togg ndog yi di togg euh, ñami koor gi ña àjjuma yi bi ma ko gaa yi waxee dama leen ni gannaaw ñuy woor ku ci woor bi ma ko gaa yi waxee dama leen ni gannaaw ñuy woor ku ci woor ku ci julli ji ma sa koor nga yóbbaale maa it bu ma yóbboo ndog yi dama yóbbaale ñami àjjuma yi waaw. Hmm. Baye Fall yi julli ak woor di yóbbu ndogu nag. loolu dama la ne woon nee naa la sànkar ci pañ gura bu nekk la nekk ku yii si mooy seet doom bi sax fi ne li Baye Fall yi ci seen yéen am na lu si laa laaj sëñ bi laa jóguma julli dama laaj dama lay dendal leer lu ci ne dama lay la a ànd fi ne fi ne foo daal ñaari daal lay doon desu jënd daal wenn daal ku na tawul loolu doo jënd wenn daal te boo ko jëndee da nga wut leneen lu mottali ba ca def hmm. Baye Fall yooyu koy def nag ñeneen a koy def ci te ñuy Baye Fall am na ñun ci lisinam Ansalatim salatim saaxu ñuy bàyyi faal am na ñun ci lisinam Ansalatim salatim saaxu na la ñuy sëlma lisinam yu raaxoona woyam nool maaxoona te yonante bi danoon suñu borom bëggut julli goo xam da ngay mel guy am na ñooñu xam nga li ñuy wax subhaan rabbi ba xam ndéeg la ñuy war a wax yëpp ñetti yoon yi ñu naan waxal nangam da ngay dalay leer ne nim sa géeg nim si géeg waxu fi loo waaw su ña jàpp ca la tax defuñu ko lañ sëñ Touba ma cëppeelu woon ci gaal gi cëppeelu ci ndox ngir ngir bañ a faat waxtu Cheikh Ibrahima ma ko toppante musta sëgg te ñu d'accord ci lañ d'accord nun ci lañu continuer ba léegi ñi ñi julleeg ñi woor ñi bàyyi faal li ko nga ne saga su kii peñe bu sànkar la man li nga tontu leeru ma peñe bu sànkar la man li nga tontu leeru ma leer na la da nga bëgg wutal ñoo ñi sik man la boy wutal. lu ma dem ñi kay dama la a tàgg kay yow kay. yow bokkoo ci lii eh, waaw man waaw man kay mom la def le dama leen man duma nar ah. bu cheikh bi lay contrôler bu ñëw di visité fekk nga genn ci liste ba la dul nangu. ah noonu nga leen di ah déet ñi lay pointer ci liggey bu ñëw fekk ñu la ci poste ba nañ xamne liggey liggéey ganaw ci liggéey bi Cheikh rabi lan ne kay ku ko fi ne na ko de sa soxna si na dolli far ci yow ba xam dana xam de ah noonu nga koy tëkkale. noonu nga noonu ngay kii sa kii. déet man kay ah de yow noonu mooy kii bi waaye déet noonu nga ko àttee rek. lu baax boo ko noonu nga ko àttee rek. lu baax boo ko doolee mu gën a baax kay. déet loolu kay dama damay laaj rek. dama la wax de danga laaj wax waaw ah, bëgg ñu ah, daal kon baax man kay damaa def noonu danga raa rek waaw góor waaye doo waaye naanu ka. Ah. <laughs> waa góor kat ci tool bi may bay ki ma ci ma bokkal waar laa mën ne waaw góor waaye mënoo si di soññi ci bi tool ne ci ŋarale moom boo bu bu séqee dëkk bi day xar dara ah noonu nga leen gisee. noonu laa gisee lii ma wax. déet la laaj kay laa la laaj tontu. ku mel noonu ku ku dëgguwul ca lam nekk ku ne daal nii laa ko gisee waaw. Ah. kon waaw kay baax na. mën a doon nag ku dëgguwul ca lam nekk ni laa ko gisee. déet sëñ bi kenn wax de yàlla nag koo xam day boole woor boole yóbbu addee yóbbu ndog yóbbu nangam. yow nga naan sa attaaya. attaaya kay kooku kay am na point bu mu leer jiitoo nag sëñ mu jiitu na ja jàpp man point bii Cheikh Ibrahima jàppante teewu ko am sëñ Touba ca laa ngoy waaw kon mbokk yi ba léegi ñu ngi fi ci kër sëñ Cheikh sëñ Cheikh Fall Mbawar ñu àndal Gébu Fall Gébu mooy Cheikh Ibra dafay nekkoon di fi bay ay toolam la de. Gébu Gébu dëpp dëkk moon seex Ibra bi sëñ bi sëñ Cheikh Touba ay toolam la de. Gébu Gébu dëkk moon Cheikh Ibra bi bi sëñ Cheikh Touba dir la ko ne wut wut màkkaana ngi soog a jot. Hmm. ba Cheikh Ibra demee di sanc Gébu ñu ne ko da ngaa sori mun leen du sos ci sëñ Touba. bu njabootam màggee fa mu dëkkee ñu muy li ñu soxla te bëgg ko te rus ko ko wax muy des ci seen xol waaye taxas dana naawee ci pénc mi ba ci ko fekk loolu day ko taxaana sañ ci géebu te dane ne lu nawet manqué manqué addiyee ñor fi ba mu ko dalee bay ba tey nag fi ne dégg goo ar nañ la ne géeboo teg loolu ngeen dara hmm. ñetti téeméer dong ak fukk ñett fa dëkkan ab jay sunub taalibe seeni sët ak seeni doom nga bay ba tey dogle kay laa waa moom nag mooy fu mu nekk ci Touba ñu bàyyi de tur bi kii na waaye leeru leen xamuñu fu mu nekk. ma nga boo jógee fii 18. waaw waaw. dëkk yooyu ci def daaray Cheikh Ibrahima la ñu waaye kër ga mu dëkkoon mooy gébb waaw. Euh, bokk na ci titre français si maa ngi Cheikh Ibra ay këram ak yu bari def koo defoon titre français am loolu moom amu ci xam naa bu dul bu dul titre français di forcé ndax moo ko moom kenn du ko loxo bu dul bu di forcé ndax moo ko moom kenn du ko nangoo loxo yow ya force mau bëgg ngomong, ko moom boo ci doxee bu la bu la fen bëggee puus da ngay gitu, gitu. ya lànk da ngay dëgër waaw yàlla ko santaan de isabitu laa lisinaam bi xoy saat fi addu ñu amono yaay lisinaam isa laqatum fiatun fas bu toolu santaan de kon mbokk yi jërëjëf ñu ngi ci kër sëñ Cheikh Fall Mbaor ñu ngi ànd ak moom ci ndog yi fan ak Cheikh am cosaanu ci yoonu Baay Faal moom la moom ndax sëñ Tuuba noonu la ko doon wax de bale saxar li ku saari wa ku lu yomin bi nabi bi neféeri Cheikh Ibra bis bu mu lëggéeyal sëñ Tuuba amut bis bu mu bis bu mu joxut sëñ amut waaw fii nag dañ naan tey du sangu waaye tey du naan ak tey du sul amut ci bis yi waaw te tey du sangu sax ci nit laam waaye jën moom bis bu ne lay sangu boo bis boo ko sangut mu dee quartier nga dëkk yow mii de <laughs> loolu ko yow mi ko bañ ba sa di ñu la indil bi am ngay taalibe yoo xam ci géej gi sangun nga leen di laaj wax waaye bu ñu indi sa bok yee koy jël <laughs> ndax yow gannaaw yee sa xel nga di kar ndogu yeeg naan bool bi suñu taxawaay di yenu de moom <laughs> da nga war na xaru ba fël ko jëmee ko sa kër rek dégg sa xel nga di kar naan bool bi suñu taxawaay yenu de moom nga war na xaru ba fël ko jëmee ko sa kër rek dégg naa bu rek dem kankor waxal <laughs> akelekonso sen lolo ni do wa sen bi ndongo yi mom yenu gi ni yanu ni mbolo mi bari ni yanu bol yi di dem loli do ci do ci waxat dara fiñ tollu waxon nan ko fessa way fi ñom cheikh nek ñettel nun dox bi ni dox di yobul señ bi ay nit nga ci wéré di seen wéré di ci fajo ay nit nga dugg ci neja ñak ñak ñak di ci jëlé ah, seenu ñak di ci roté seen jangoro di ci wéré saxar sa nga fay dugg nit ñi defa wéré da nga gis ku ñu yew indi ko fi te bu ñibbi desu ko jox saxara desu ko jox garab te ci liggé señ tuba cheikh abdou lay faj talin dal wa man yasal li sawa ma yusalit na fa sayru inda ali sayri kal khatan ci bobu digënté lañu dox bo bëggé nak lu ñu ñepp ko ci auto ñi wër makka ñi dem ci kaaba ngay tawaf wax leen ñi war auto di tawaf kaaba da lol loolu koy la ndigal la suñu borom mo la wax ni suñu digal yi nuy nuy ah, da ngay manam fajj nit ñi ak di kar ñi ñew ci yoon kon fi baare rek neena naa la baare fek mu nekk di itteem non wenn wer lañ koy def ci koor lay doon te koor bi ben heure lañ ko ci def te bu auto yi ngay kaasal ak kartal ko xamne ki sa versement ki ni yuti sun teranga ji ku koy siyaare wala ku ko siyaare ba ñibbi ja nga jëlee sa versement yow fu sa jàngoro fajo kay bobu hôpital war wax lu ko yàq den ñoom it dañuy yóbbu àddiyee de. yow fu sa jàngoro fajoo kay boobu hôpital wóor wax lu ko yóbbu àddiyee de ñooñu ngay wax nag da ngeen ci tase ak ñoo xam seen oto ak woor yàkkamtee dog yi doon nga xam ne am na ñooñ bu ñu wooree li daale ci bu seen kër jotee ba jant sa moom xeex da leen di yóbbu ak mer ak xulo googu wér nag nun nekku na ci falaa rafasa wala fusooxa wala jidaala fil ajji daal yàlla santaane boo booy def lu baax da nga ciy boole xol bu baax gaaw a mer gaaw a tàng ku woor wóoruloo kenn ku sa bopp ku wori sa bopp nga kon ah, nga leen di wax yow ma def noonu ñi nga ilif nga war wax nga ngay wax ñooñu nga xam ne dañoo woor nekk ci yoon yow nga yor say yow ñi ngay wax sax xamu woor na ñoom déedéet da nga naan borom oto buy dawal waaye leer koor kenn leer la ci koor kenn leer la ci ndax fi ne restaurant restaurant yaa ngi jaram firi ah. waaw yow kay yoon da ngay wax sa ñu dem te dem bu ah man damay gis ñu baari sa gis ñooñ ñii dinaa ko gis. sañ ko gis neex sañ nga ko gis ndax fi ne dañ ne dañ ne gis texe man leen texe des koy gëm waaye des ko yem ci gis ndax ay abo jalin gisan na yan tamit teew ko dem sawar ndax xoolu ko woon ay nu rahmati ay nu sooy la ko xoolal nag sab gis boo boo ko féetalee ci bañ a baax la ngay gis féeti woo ko waaye ñaata yoon lan la kalaame si fi ci sa la sa xale yi sa ndaw ñaata yoon nga gis constat yoonu Baye Fall nekku ci kalaame si gi ne la sa xale sa ndaw ñaata yoon nga gis constat boobu yoonu Baye Fall déet yow kay bi bi yow kay bi lay atteloo mooy sa bës bi lay atteloo. lay xew dama ko yëg da cee a lu ma yëg ah. waaw. waaye kon xanaa nga àtte li tàmbalee ci yow. yow yow dem deel àtte ji loola ba war a egg si xam nga néew ñu la demal bàyyi faal nga ndax fii ne loo yaa nga dëkk ak ñoom 28 nga dëkk war ngaa tàmbalee sa laaj foofu. yow de 28 moom xam naa bëgg nga leen moom <laughs> ñooñu. ah yaa yaa dem ba ca jaadu ba nga dëkk ba takk fa soxna kat. <laughs> ah kon mbokk ya kanale léegi tëj xaaj bu njëkk bi kon waa kan 28 dal seen jaan wacc na seen seex nee na du ndog yi mom mun leena ñu ñew seen wi ñew ci walu li nga xamne nak moy ki fan yi yagar na ne bis bu ne na la ko laaj dina la ko laajaat eh, dembu fan yi iya rek dégg nga ba legi jeexagut xale yi ni ray yu jigeen yi teud ag seen kaw welel lool luñ ci wax lan nga defe na moy safara bi ak ndax duñu ag ci li sun borom santane won ku ray ñu ray la. loolu la yàlla santaante waaye gannaaw nag danoo ne laïcité laïcité moom dama leen laïcité du caagi nag laïcité li mu firi mooy laïcité day mel na dañuy xañ julli yi droit xañ leen l'islam te yàlla dana fan laay isati wali rasuli wali mu'minin teraanga moom yàllaa ko moom te deen julli ji laa ko jox lay laïcité nak laa hisata lay firi day melni ne teranga la ñuy jéem xañ julli luwaab yalla bi nak kuko tek nak nag hisata lay firi day melni ne teranga la ñuy jéem xañ julli luwaab yalla bi nak kuko tek ci suuf benen bo man di lonki dudul meuna soti ah. ndax fi ne loli dong ku ko fi defan ñaar ak ñet ñi ca dess bayyi ah. waaye gannaaw droit de l'homme da taxaw te droit de l'homme toujours wet gam far waaye ga ca des douleur de l'homme la fay fete waaw kañ dal ci kawam gañ ko dong eh, waaw kañ dal ci kawam gaañ ko donc ña war a faj loola nag lay faral gannaaw yow ka xas dee moom pen bu ñu mën di tëj kii fanu gudd aay ci peen kane ca kane ca baax kane ca kane ca xabru yo moom peenam jeexagut beneen peen buñ ma sa siise kii nag bu fan yu guddee mu génn ci waaye ku ko yóbbu fa kookee dem moom dugal leen ci sib yi ñu daan yor wër ak ñoom marché yi ngoro gu ñu amoon ci dëkk bi mu tas keneen ku doon waaj a ci mel ni ñoom da nga ne lii danaa ci génn waaye ba gannaaw dañ koy làq wala ndong ndong goo mën a xamee kenn daam ah. kuñ ci mën a ceen nu jox la gannaaw yi ndong lañ lay woon ak ndong xooti taat mën a si joxam nit gandoo <laughs> c'est léegi kuur yi kuur yi ñuy dóoro yooyu loolu kii dañ ci yoon Baye Fall c'est vrai daan yor kuur wala ñoom ñoo ko yéen a sos rek daa bàyyi loo gàddu ne Cheikh Ibrahima daan laaj rek sëñ bi loolu kay laaj la yoon laaj aada fi ne ndax jeesi yi sidnaa li dul xaaf jam yoroon ndax yonte bi daan gàddu jeesi wala Aliou yow daanan xeex Aliou daanan xeex dul xaaf jam yoroon ndax yonte bi daan gàddu jeesi wala Aliou yow daanan xeex Aliou daanan xeex ah, ñii dañ doon ne lii lii da koo ñaglu woon te Cheikh Ibrahima ko ñagat am ñag nag sëñ Fall dane moom ñag day gën a ñagat la muy ñag ah? ci yóbbu ay ndog fu lu mën di def rek da lu di def rek da ndog yi da koo fekk ak nun murit da daan yor pëgg teg yor kuur waaw ah. booy dox guddi loo dajal da ngay daj yu dox ci yéen bëccëg ngeen di dox de koor nga ndog la bu ne lañ ko yor laa la wax dox bëccëg ak dox guddi lañ yemal euh, fi ne chauffeur si li tax conduite bi yàqu oto école yi duñ jàngale guddi duñ jàngale ci taw bëccëg bu kese la faar guddi mosoo cee daw ah, ah booy kii kay da ngay da ngay continuer lépp rek chauffeur si de moom xam naa ne versement yi de moom seen versement yi xanaa daa mun ñu dul ñëw fi ah, ma man ay ay chauffeur kenn ëppale moo ko waaye dëgg laa dul dëgg laa dul bàyyi fenn mu féete fi aw fenn yi def bu gane ji bu jubee kër teggi hmm. <laughs> waaw. mbokk yi ñu ngi ci jotaay waa ñu del seex Ibra Cheikh Ibra yaa na ñaar fukki fan ak eh, la jébbali ci seex Ibra loolu ñu del siwaat ci sëñ bi noonu la tëddee wala ñu nekk ak Daaru Salaam lan wàccee wala Kajoor dane na daal ñaar fukki fan ci fi weeru koor bisub di wéer la mbir ma leer lool moom wax nañ ko ay yoon yoon daaru salaam it ba ko suñ baataa sañ ci Cheikh Ibrahima yett yoonub xat boobu suñ mag bi ñim fi daan am ñëpp ñi gane àddina dañuy wàccub liggéey soxna Fat Jam yi jàng na ba jeexal téerib suuf bi sëñ euh, Moustapha Mbacke sëñ Fallu soo ko gane àddina ci Cheikh Ibrahima yettib xat ñëw ne ko suuf sama yette woon xat bi démb de euh, ku fa demoon de Mbacke ma gàddu doom ji fa juddoo maay gàddu fa nu guddoo sëñ bi ne ko boo doo maay gàddu fa nu guddoo sëñ bi ne ko boo demetee tibbal ci suuf sa yut ma ba mu demee tibb ci yut ko mu ne ko Ibra Fall ko yaa ngi xor-xoral mu ne ba dëgg lay gis xor-xoral gisu la mu ne ko wan ma barab ba ko du ma la jiitu kon naa topp ci man nga topp ci Cheikh Anta nga xam ne jiitu ma la jiitu di xalangu nag di xalangu ca lay beek yëf bañ egg foofu sëñ nag ne aka ah, sa barab baa ngi noonu sëñ Moustapha Mbacke ak sëñ Fall sëñ Fallu bi su kasu rajo bi mu fa ganee àddina da daan wax naa maa yonent bi noo bokk mbir dana lay yi ma ne cëpp xam nga kee moom mu ñëw jamono mu ne noo bokk bis dana lay yi ma ne cëpp te yonent bi wax na ne guddi rañaan ga daja nag eh, ku yàlla woo ci juróom-ñaaral bi asamaan mu jëm mu jëm kaw ci juróom ñaareel bi asamaan lañ daje kooku jëm si ci suuf ku ci nekk daje naag yow nga xam ne kon eh, yàlla nekkul fépp fépp ne ci biir yàlla loolu mooy tawhid mhm. aywa de dégg nga téere nee nga imaam ju gàtt jamuj mën nga koo kii. da nga ne ma ñiy julli di nangam. Ah. man la bari na ci bari na ñooy kamaara ay tanaas doon la ñuy jullee. bari na ci waaw li ñuy jullee dama ne ci waaw li leen ci dañ koo jàng ma jàng ko foo ci jàmm danaa la loo ci doon jàng ñoom bi ko jàngee dañ ko pratiqué kama ko sant ma ko jàngloo rek ndigal laa doon wi bañ ma jàngloo jàng naa bañ ma sante leen maa nga ci lool waaw lu tax di julli ji it te di ut yi yow it waaw lu tax ngeen di julli ji it te di ut yi yow it. nee naa la it julli wuñ ko bisu. yow léegi jullite ut dama la ne. it gannaaw noo ngi ànd ak ñuy liggéeyal Sëñ Tuubaa ak Cheikh Ibra bis boo xam ñu ci ne seen liggéey day am tëjte. bis ba ñu bis boo biñ buñ liggéeyee nag ba war a toggee añ yut sëñ bi mooy bisu it bi ñuy ñi bu ñuy julli jumaajan daan dem sax man at mee at mu mujj sëñ Murtala daa jiite ci jumaaja ba noppi dëpp jaar si ci kër gi ne dañuy julli sunum xel ne ci yow nooy nan fi jaar fekk nu ci mbaar mi man leen kon fii mënu fekk nan fi yem moo tax jëlatuñ de. ci mbaar mi ngay kii. moo tax nu yem foofu. waaw waxoon naa la fii nga ne ma du ma génne mbay asaka mu ñorut ak yow da ngay génne asaka bu dul loolu ci la. Thiel la yow ma du ma génne mbay ma da nga maa wax loolu egseegut. ma ne la mëneesut a natt asaka mbay mu ñoragut. mëneesu koo natt laa. ma ne la mbay mu ñor nag léegi mën ngaa natt asaka mbay mu ñoragut mbay mi nu jëm natt asaka ji. Eh, man kay bay ma sax ndax ndax yow ginnaaw yaay bay te yow yow yow doo maye dege doo maye gerte doo maye tege dege te dege de. noonu la la ñuy bay dañ koy liggéeyal seen Cheikh Ibra. noonu la la ñuy bay dañ koy liggéeyal seen Cheikh Ibra da ne woon. Ah. natt julli yër sa bàmmeel la Ibra Fall day wuti lu mu ci def ne bàmmeel yër feesu ko natt asaka nattkatub asaka ne xellikatub ataaya koy ëpp tuyaaba ndax nee na nattkatub asaka da ngay yàlla dalay moom moom jiw yi moom tool bi moom mbay mi ñoo sotti ndox mi bu bu ngeen di séddoo nga jël juróom ñeent booroon bay ci tool yi dër yi sax da ngeen di séddoo te kooku day génne ay ay farem yëpp ba mu jeex ngeen soog a séddoo benn benn ne xellikatub ataaya nag tabla ji bu doon téeméeri kaas benn lay jël joxe yi ci des <laughs> Eh, mbokk yi xam naa ñu ngi ciy catal <laughs> jataay bi <laughs> bu ko defee eh, léegi ton Daaru Salaam bi ton boo sëñ Cheikh Ibra fu ñu ko wàcc boo sëñ Cheikh Ibra fu ñu ko wàcce Daaru Salaam la wala Mbàkke xawma fu ñu koy wàcce Cheikh Ibra dañ ne sëñ bi wàcce na ko ñetti yoon bu ko wàcce mu ne ko sa baax gi xëjatu rek sama jikko ji ci dëkk bi hmm. sëñ bi dabaliwaat ko mu dellusiwaat tey noonu nag njébal googu dama leen fañ ànd du fii gannaaw moom daja naa ki nit ni leen kebe seet mu yéen yére yi ngeen yor xetam mi ngi xeeñ kon xam nga gisee woon nañ fa dul fenn nañ yenu ñe yenoon sëriñ xamuñu woon xetuk suñ mag bi waaw ah, kalaamu la lu yaay la staafoomu li ne ana ana woomu te am na yoon day liggéey ba ba yére yi xotti ko sëñ bi di ko sant mu wuti yére sant ko ko ay yoon mu mu mu continué nangu fee bàyyi tool bi ba sëñ bi euh, wax ko ko wax bu xaw a tàng Cheikh Ibrahima nag daal di tëb tëb ñag ba daw jàll di wuti ne da kon mi ngi defe li sëñ bi santaane bi mu dawee béyk ci benn tool boo xam ne guy guñ sëgg ba mu seeta fa nekk moom mooy dañoo xaan ci guy gi ba yaram wi ne fang mu mu wàññi ko ne guy gi gënuma borom tool te la ko yàlla fekk wodd ko maa ngi koy néegi ci tool sëñ Bàmba ba muy wàññi ko fekk na sëñ mag bi am ku fa ñëw joxe addiyee ay sor daa jub daa jub sëñ bi dong mu xëpp ko nga ne ko suñ borom la ko jox nga xam ne kon ñoom réeroowuñ mm. dal daal indiwoo taarix bi dama nga na non. rek noonu taarix bi moom. taarix ci njàng wax a wax lan leen wax du ci. waaw ne bari na. ci mbir yoo xam ne du ko laal am ci mbir yoo xam def na ko misaal waaw yéen boo bëggee xam lépp fi ne fi ne li sa jëmm ji doo nga xamoo lépp ndax buti baati nag buti te yam boo ak sa buti sa loolu yàlla na yeex sëñ bi <laughs> kon mbokk yi ñu ñu dellu si ci jotaay bi ci wax naal ci réew a ah élection yi dama laajoon nan la ci nga ne ëppalee xob mooy kii yow ma laajoon la koo ci faral koo waxati woon sax maa kay ki ma laa xam ku yor sëñ Touba laa faral Cheikh Ibrahima man kay fa ma laa xam fa laa nekk ba tey. loolu kay bokkut ak woote